mbokk jullit yi am di jaame soppe si yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bi sant yàlla doole sant yàlla bu baax di sant yàlla bi ñu may kàttan may ñu fekkee ba ndeelu si waat di defataani fajar di wa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi daiman abada alhamdulilahi kasiran alhamdulilahi ala kulli halin mooy ñu ngi sant yàlla sant bu amut app amut waaye di julli si yonte bi salallahu alayhi wa sallam ak waa kiram ak saxaabaami ak képp ko xam yaa ngi topp si sunnaam bi yomal qiyaama di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla ñu yàlla boole si ñooñu waaye yàlla xëy jaama indoo ko fanaanoo ko yàlla mi jaamal yàlla mi defal jaama yokk ñu sutura yokk ñu kàttan yokk ñu wér ku feebar képp ku nekk nekk si kër gi wala si lopitaan bi yàlla teg la teg la feebar yàlla na yàlla saafara yàlla yàlla fukk sa bopp yàlla na aafiya yàlla yàlla solal mbubu wala na aafiya yalla subhanahu dafa ñu xéewali àdduna xéewali àlaxira mu ci safara waaye jullit juuti yàlla yërëm leen yàlla xaare leen aljana yàlla yaatal seen bàmmeel yàlla def seen bàmmeel mu nekk rawdatu min riyaadil janna ma allazina anama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhadaai wasaalin waxsuna ulaika rafiqa ndaw yàlla sàmm leen ndaw yàlla aar leen xale fu yaa egut yàlla war sagal leen xam-xam war sagal leen liggéey war sagal leen àndana yu baa jigéen yàlla sàmm leen aar leen waaye yàlla boole ñu defal ñu ñëpp xéwali àdduna xéwali àlaxira mu ci safara muy rabbana atina fi dunia hasana wa fil axirati xasana wa qina azaban naar mbokk ñu ñëwaar fii si daaray Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi jàngalekat mu boobu gannaaw buy sant yàlla doole sant yàlla bu baax bi ñu may bañ jeexal weeru koor bi si jàmm mbokk jullit yi ak ñaan yi nga xam ne ñu ngi ko doon ñaan ak ñu doon ñaanal yëpp yàlla yàlla subhanahu wa boole ñaan yëpp te nangul ñu ko macha allah ñi nga xam ne gis nañ ne gis ñu leen ñëpp ngay ñaan waaye fu waay nekk rek te ñaan rek yàlla ñaan yàlla yàlla nangu sa ñaan te loo ñu te loo ñu ñaanal tamit yàlla nga ñu si loolu ñu ñaanal si yiw rek yàlla nga si uppale yàlla subhaana taala defal ñu ko bu defal ko mboolem jullit mbokk jullit yi gannaaw ah fanweeri fan or si weeri koor bi yonent bi salaa sallam indi ñu xadis ne pour wane ne wallahi yiw bi nekk si weeri koor ñu ne nga or benn weer ñu ne lay teg si juróom benni fan gannaaw weeri koor mel na ni or nga at bi mu ne man saama ramadana summa atbaahu sitta min shawal ka saama dahra kullu hadis imam muslim allahu akbar hadis imam muslim yonte bi alayhi salaatu yàlla subhaanahu wa taala feyam kenn xamul naka la toll oor nga benn weer benn weer borom xama bi ñu ko calculer mu ne mel nga ni oor nga fukki weer ak benn si benn weer boobu ban moo ko desee mooy juróom benni fan bu boo ko defee mu ne li nga mottali at bi yëpp wala man saama ramadan summa atbaahu sitta min shawal ka annama saama daxaru kullu at bi yëpp juróom benni fan wax nga teg ko si gannaaw weeru waaw oral juróom benni fan rek ñu ne am nga at bi yëpp yiw am nga yëpp weeru koor yéen bi sallam am na si hadis bi mu ne al jumuat ila jumua ramadan ila ramadan kafaaratu lima baynahuma maa lam yartakib saahibul waaye fi si a wax rek diggante weeri koori daaw weeri koori ren bi allah yàlla ngi laa jégal sa baakaar defuloo baakaar ba mu la bokkaale mooy shirk mooy li yaax mooy li nga xam ne ku ko def kuy bokkaale rek xamal ne sa jëf yu baax sa tiyaabu yëpp yàqu na bokkaale noonu la mel bokkaale du bàyyi dara lu baax si yow lu fa fekk lu bon def ko yóbbu lu fa fekk fa fekk lu baax def ko yóbbu lu fa fekk bon nag def ko yokka ndig bokkaale moom du lay teg si yoonu siraatul mustaqim nga xool mbokki jullit yi ndeysaan mag yi dañ daan dégg ñu weer bi ñun lu rek si dégg boobu rek si amoon ah mag dañoo gunge weer rek waaye njëriñ bi si nekk njëriñ bu mag bi nga xam ne mooy ne ku ko oor rek oor nga at bi yëpp bam allah waay waay waaye waay alhamdulilah moo mun nañ ko am ñoo xam ne dañoo ne ah man kay teeruma weer bay gunge weer loolu waxi ñàkk xam la ñàkk xam la wallahi njëriñ bi ci nekk yaa subhaana gis na ñamoo dugal arjana yàlla subhanahu wa def leen laaj sax ndax bugg ngeen doole hal min mazid ndax bugg ngeen ma yokkaleen ñu ne ko ah kañ yàlla subhanahu wa taala dal di génnaay génne kiiraay bi nekkoon diggante ak ñoom ñoom ñëpp ñu daakaarloo yàlla moo ñu dugal arjana daakaar jaakaarloo léeri yàlla boobu amul dara lu leen gën neex lu passé loolu loolu mooy ziyaada mooy yokkute yàlla subhanahu may nañu ñu oor fanweeri fan ñu ne ah kañ léegi yokkale juróom benni fan ngeen am at bi yëpp allahu akbar benn six days ak juróom benni fan ka annama saama dahru kullu mel ni or nga at bi yëpp islaam yàlla subhaana taala mooy fay tax mu ne si hadis bi as sawmu lii ana ajzi bi fay koor man maa yàlla subhaana taala maa ko moom te maa malaaka mun laa wax ñaata la yonente mun laa wax ñaata la yàlla xam la moo fay bon nag yokkute boobu mbokk jullit yi yàlla yokkal ñu beneen juróom benni fan rek yéen saa wax ñu ko ne nañ ko si teg rek mu mel ni am nañ at bi yëpp pour ñu oor ko juróom benni fan yooyu nag naka lañ koy ooree ndax dañ koy oor juróom benni fan teglante ko bu la neexee nga ne man daal su ma ko commencé daal bëgguma taxaw naa ko commencé jeexal bu la neexee nga ne naa def ñaari fan noppaleku defaat beneen ñaari fan noppaleku defaat beneen ñaari fan mu jeex moom daal balaa weeri shawaal bi weer biñ nekk nii weeri sëriñ bi nekk balaa moo dee yow noo ko mun a ooree noo ko mun a ooree nga ko oor waaw benn fan ngay def wala nga ne naa ko buri def lundi ak alxamis yëpp nga xam ne di nga am tiyaabu londi bi di nga am tiyaabu alxamis bi ba pare yaa ngi am tiyaabu juróom-benni weer yi aziyaadatu fil xayr xayr maanaam yokkute si lu baax lu baax la waaw yokkute si lu baax lu baax la bon juróom-benni fan yi mbokk jullit yi ah kañ naafilal ñaari raka ñeenti raka juróom-benni raka juróom-ñetti raka loo mun a naafila rek waaw léegi sa nga ne ah, naafiloo ma ko waaye na mun na maa tere or déedéet mun la mun laa tere or bon juróom benn fan yooyu mbokk jullit yi nañ leen ko waajal ñun ñëpp macha allah gannaaw bi nga xam ne julli nañ si samedi bi ñu am nañu julli dimanche waaye ñu bëri yëpp si samedi bi lañ julli bon ñooñu fi nekk ni war a nañoo mën a préparer pour def li nga xam ne mooy juróom benn fan yi ndax yàlla subhanahu wa taala ñu mootale suñ li nga xam ne mooy suñ eh, eh, eh, at bi comme ni ko sallallahu alayhi wa sallam jàngale saxaaba yi ko doon defee noonu bon ñun tamit ñoo ñëw suñu roy way suñu yooyu lañ wara roy ndax ñu mun tam mun a mucc àdduna àllaaxira loolu la ñuy wax subhana wa taala jangal bon lii mo li nga xam ne mbokk jullit yi xadis ñu leen indi won tay di ñaan yalla subhanahu wa taala yalla ñu yalla may katan may ñu wër buñ ko mun a oore te suñ ko oré yalla ñu ko yalla nangul mu ñu bokk ci ñi nga xam yalla na lay may ñu or at bi yépp يالا نيو كالا ديفال يالا ما نيو كاتنا كبير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين امين امين يا رب العالمين